am na ñoo xam ne suñuy koy lañ xam nañ leen ci biir Touba tamit ci biir xoromu tuubaa ji bi mu dugg gisee moom moom bi mu dugg ci lañ commencé nit ñi góor ñi ak jigéen ñi taxaw ci biir jumaa ji ci penku bi nga xam ne suñu saar yi te daaw fa sol ay dàll taxaw fa di yuuxu turu waa jooju di yuuxu turam moom ci xam nag muy leen dee leen wax jërëjëf sëñ Touba te bañ a wax loolu amaana ilmiya moom mooy ma wax loolu nit ki lu mën a xew da wax dëgg. bi mu waxee loolu nit ñi kon ne góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo te ku ne xam ne si Abdul Ahad yokk bi mu yokkoon bañ góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo moo tax su may wax it yaakaar naa li ma xam naa ko ndax sama mooy imaamu ratibu Touba sama maam moo ëpp lu mu yor jumaay Touba ci Sénégal ci ci ci Touba ki jur sama baay tey ñun ñoo yor jumaa ja ba tey waa kër Sëriñ Mbàkke Buso ñoo yor jumaa laa bokk kon la may xam naa kon bi nga xamante ni loolu am na. yaakaar naa moom mënoon naa éviter loolu waaye xëy na am na discours bu mu doon pratiquer waat te dinaa ci ñëw ci kanam parce que bi coow li bare bi coow li bare avant coow li dafa bind ci page Facebook am wax ni bu subaa dinaa dem jumaay Tuubaa julli fa su ma paree dinaa dem siyaare xel général des Tidiane xel général des Baye Fall nam ko waxee woon noonu la ko defee woon d'abord bu fekkoon comme moom ginnaaw day joxe ndigal ñu koy topp. muy tere ñuy bàyyi su leen waxoon ni leen comme ni mu leen waxee keroon leen na ngeen ñëw tribunal te bu leen yàq dara su leen waxoon leen bu ngeen ñëwee Touba na ngeen dëj seeni làmmiñ te lépp lu nekk Touba biir Touba bu leen ko bu leen ko jege bu leen ko yàq kon ñu def ko waaye ci biir Touba lañ commencé loolu bañ génnee wutali Mbàkke bu fekkoon jaar na ci route Mbàkke bi directement dem problème du am waaye héliport ba mu jaar bokk nañu indi problème coow li bari station bi ñu yàq El Hadj Dame Sylla moo ko moom ak njabootam di liggéey nekk doomu tuubaa yor na doom surtout maam Thierno borom daaru ñu yàq ab station seen champ ba ñu yàq ay moodu moodu yu cotisé woon dajale seen alal di ko liggéey ñoo ko ñoo moom. ba am ñu wax naan sax nangam leen université bi bi ubbi bëkk démb beneen bi mooy ci biir mbir ma ki nga ni mooy. beneen bi mooy ki nga ni moom moo jiite ci partie boobu foofa moom moo wax ni am na ñu ñëw jóge ak faneen ak faneen ak faneen ñu gis ci vidéo yi ñuy làkk lu ay wolof ñooña est-ce que xam nañ war may Touba est-ce que xam nañ xor may Touba moo ne moo lañ leen defal benn séminaire de leen bu ngeen ñëwee Touba kat doxee leen nii ak nii ak nii ak nii kon ku wax ni mbir mi xewewu tuubaa dafa mel ni kon fekkee woo ko woon beneen bi mooy ma dégg démb ci benn discours am ko wax ni bi mu ñëwee Touba jàngal na waa Touba lan mooy ay teggin kon de waa Touba buñ toogee ba moom mu ñëw leen jàngal ay teggin kon yaakaar naa mbir mi dana waar suñ suñ Touba taalifoon ci bu yàgg ab téere bu tudd nax ci xadaayil xaaj daan ne li yeta addabu wa zaaka wajaba maa ngi taarif téere bi ngir ñu yaru te loolu lu war la waaye li gën a met ci mbir mi nag mooy bi mu amee moom moom ba mu demee dafa massawu ab tele bu ñu xamoon ci télé yi ngir seen signal bu dagoon fa mu ko woon massawoo day doon lañ xaar ci moom mu ni li xew Touba kat métti na ma waaye mbokk mi firmee laat na ko léegi ndax nee na bu amaatoon tamit rëccuwuñ ci dara loolu nag lu doy waar la loo xam ne lu ma da bàyyi xel. li ma wax c'est clair. léegi nag préfet bi. léegi nag boo xam ne constitution moo ne. léegi nag loi dinañ résister. man loolu laa wax leneen loo fi dégg rek sa waxi bopp la du samay wax. léegi nag liñ daan wax ngañ dem ba def ñu ko dëggalal moo tax ñu ëpp ci nit ñi amul jaaxle ci seen bopp. amuk tiitaange ci seen bopp ndax bu fekkoon nit.